ña xam yàlla ña xam ca baawoon ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam ñaxam xam yàlla ña xam ca baawoon ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam ña xam yoon leen ca baawoon ba tey fa mu jaar boromam ña xam yàlla wa ña xam yoon leen ca baawoon fa mu jaar boromam te wax ji moo wax ba konoon yooyo bokku di ngat wax ji moo yoog boroomam ci géej ga la lambee géej mu tànk ca leeri xëy bu ya boroomam ci géej daqee seytaane ki gaayam bu ñuy maaj buy taxaw faratay boroomam ci géej ga la tijjee ndam bi xam-xam ba faf yor alway xalim ak boroomam ba àgg ci yàlla àgg ci ngën ji yónneen ñu soppi ko soppi léppam muy boroomam saxal foofee jihaari bakkan ci ayaat di boole tëgg ak julee weetal boroomam ba fam see suukar far ci yonent yi moom moom ci baatin cay boroomam ñu bokk ko fol tofol ko ngërëm mu fab kun ñu wamaturu yi jox ko mu jox boroomam di kenn ku ñëpp xam foofe ci baatin tubaab ya bañ sëriñ sëdiyem boroomam mu fab dib jantitim jipp duniyaa di taalif téere yu selal boroomam malaaka seere pal gamam fa diiwaan muy fal ay xutbu yuy deey ak balaa la fa am ci pey arsti baatin ñu di soog daam te mooy jaasi boroomam te mooy wutaatu yonen far ci kaw di mbootam kun ci lépp lu soob boroomam mu làq ngërëm ci zaahir ak ci baatin maqaama fawqa mboolem ñoñ boroomam Sëriñ Tuuba di maxnaam dex ko dem duy ku ne mes bu gene xabaramam ku soobu tey wey te aw yoonam wa feesal ci ay leeram ba faf jub du ku soobug dex na xam ndox dof bi te watum ndox lewet na te wex ca biiram ku saggan sanku fawu ta te doo duy te doo set doo setal doo xam melay bambaa ngi melay bambaa ngi melay bambaa ngi melay waaju xamul na dégloo te roy roy luy jikkoom ya moo xam boromam di jox aji laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir baraamam di may ku ko bañ di woo ku ko ku dul kuy may baraamam di faj aajo ko xam lay mbot di seexal di génn guru ci toskare jox baraamam di fekk ku ñëpp xeeboon ay mu fal ko ba ñëpp faale ko mook boroomam di fekk ku mel ni man jàngul liggéeyul mu seexal sol ko xam-xam ak boroomam di fikk murit bu dof bu tilim ferul baa mu foot ba mu set tofal mboolam boroomam meley ko yaag meley biiram dëppoo du digle lu bon du diglu ku dul boroomam du boy ngir tiit du bew ngir mbég lu rëy du bëgg du bañ du faale ku dul du jàq du rët du jaaxle du fàtte yonnen te mas la tawat lu xew ci kudul baraamam du daw ay noon du yox yox ngir pexem nit du sukkandikoo ci mbambu ku dul boroomam lu mbir rëy rëy da koy far dolli ak gëm du yoqi du daw di mbër mu farak boroomam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàllaam du tiis ba mu tax mu war faratay boroomam du dégg nodd mbaab kàbbar te teewul lu taw taw ak lu liw liw cey boroomam du tëb jëbbatiim du wuute mësul di maamoom du gappru bis du wéeru julil boroomam du yeexal wenn waxtu te mës la fay faat la koy waxaroo montar mooy boroomam du ñàkk ba tax mu ba du kuréel ya koy laaj du denc alal lu dul téerey boroomam du tox di te jàw ki dëkkaaleem ci ay kër weetaa ma nga ca yoneen mbaa boroomam du dox di nelaw ci ay lal guddi cey kii du lekk ba rekk day mos ngir baraamam di far ay moy di gàddu tiis ci aw nit di sotti may di jël sanju baraamam bu natu jogaawa ba jëm si caan njabootam mu daar daar loo ko ngir ànd ak baraamam yaram ndaw ndaw xamal na leen yoonu baatin teral naw mag ba jébbaleen boroomam yëfal nay mbër tabax nay kër ci suuf si xamal na ña sànku woon ngirum boromam te taal na ci réew mi taal bu dul fay ci duniya mësi fu la gis ke mam cey daa dër ba ni tekk nooyi ba ni nemm ci wet te am jàmbaar gu tar te ragal boromam woyof ba ni toy diis ba ni gann ci wet lewet ba ni domm saf-sàpp ak boromam sawar te lefog te yaatu te xir te am ngor di tabbudul jeele lu mu am jox boromam rafet jëf saf xoram du waxa te réewul bari giin ci ku mu gis ngir boromam du ki sen du ay bokam du jaambur ku ñew mu taral digel la nga xam boromam du boddi du ñax du janni du xoti zaatir dala yaatal ëfal la nga melni domam du matte du jew du xol lu warul te sisul du rummi du mer du xul ci lu boromam du xasi du doore ñàkkul bay fayanto du dog war maa ki bokkam boromam du retaan nit du farfarloo du sot nit du yàqub der du tas nit ngir boromam ndaxam ji waay ji yonen la mu ne fu lëlim gëneelam boromam fu ni raasiiti waajoo xam ni fu ni raasit waaju mel ni mi mbër na ca kaw te na ca biir baraamam fu ni raasit waajoo ni buy wax ku nekk di lox di làq ku dul baraamam fu ni raasit yi koog day romb dërëm ya jëm ca mbirum baraamam fu ni raasit ni buy way arafu mu def aras di ca bég baraamam fu ni raasit ahlu badrin di ànd ñoom tey deyaale ak boroomam fu ñuy raaseeti kuy fab alxuraan ji di def ci taax di taalif ngir boroomam fu ñuy raaseeti waajoo xam ne fu mu teew ku wopp mu faj ku dee mu yëgal boroomam ku bañ bi xut bu bay raay si moroomam du gis ni mel ji jamonoy boroomam ji bu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 te fekku fi moroomam te sàkk ku mel ni seyxi ibra faati wa ahmad dundumbe ak lampu boroomam te sàkk ku mel ni seyxi abdourahman loo ku judd ci mbàkke moo la xamal boroomam te sàkk ku làq jagleeg seydil muxtaar ka dem ba siyaare yonnen moo ki doomam te seexal kem li seyxi bamba seexal te sellal seeni xol ba ñu xam boroomam te sàkkal leeni mbooloo faw yi jëf te tàggat leen ba duñu mën a mooy boroomam te kat na saxal liggéeyal ngeen ji yónneen te bum muy taxaw faratay boroomam te nelaw te daw soxna yam am di daw seytaane tey weet ak boroomam te bu mu yokkat te bu mu jénnal la muy jëf te bu mu njistal ci jëf na ragal boroomam te bu mu diingat sëriñ si te bumu mu fayantoo te bu bik ngir ka koy gotil moroomam te bu mu xas nit te bu jëw bu mu ràmbaajit te bu mu fenn bu mu dokku te day xam mbooti xol di xam baatinam nit di saafara i rag di xalam boroomam te bum diglee ka aaya ci wàllu bakkan di woote ca kaw te biir ba jisul boroomam di woote ca kaw te biir ba gisul boroomam li lim doy na yow Musaa taxawlul ku dégg ñu jàng way wii nang ma ñaanal maam ngërëmam te sax fi ba xam te def géwalam bu koy way feeg ba ba may dee te wax ju wax mu saf ko te saf baraamam ku bëgg di mbër melay ngi seetal ku mel ni mooy doonay xutbu boroomam ku bëgg di mbër melay seetal من اللي ما يدنا يخد ببرامه